production présente. Modou Mbaye maa ngi lay yóbbante ngërëm ci sa wëjëw sama sama kóllëre la sama xarit la sama kilifa la sama lépp la nga nuyu ma ko bu baax Alaaji Ngagne maa ngi lay félicité bu baax ci seen taxawaay bi Makane kontaan naa bu baax ci yow te ni ma la ko waxee rek ñu lay tàllal loxo incha allah pour nga jàppalal ñu xale yi ci seen passion bi nga xam ne moom lañ choisir muy làmb sunu champion bii nag incha allah engagement gunge ko déplacer mobiliser mbuur gépp yóbbu leen grand théâtre jëli victoire bi indiwaat incha allah. incha allah alhamdulilah. bu baax si surtout si kàddu yi moomu tey mbuur yàlla def na ñun la jiital waaye pour ñu ànd ñu defaral loo suñu dëkk bi di tàllal loxo son excellence le président de la République Macky Sall pour mu jàppale ñu comme ni ko conseil municipal bi buggee si benn programme spécial sa honorable député Sera Ndiaye mu ko doon wax programme spécial pour Mbour ñu jël Mbour ñu defar ko ba mu mel ni ñu ko buggee waaye ñu jiir ko nag si population mbuuroise bi ñun ñëpp ñu ànd yëkkatee loo ñu déggoo daw defe naa suba rek incha allah am nañ opération bu mag. di ko dalee fii ba ca géej ga traversé marché central bi dañ ko ba mu set wecc te ñu ngi siy oowoo ak Mbour yëpp ngi lay ñaanal si barke sama wasila seen seen sat bu yàlla nga jël ndam li indi ko fii biir Mbour waa Mbour yëpp ñuy kontaan si yow si sa taxawaay. ak si sa mbëgte bi ngi ñuy indil ñu ngi wax meeri mbedd yi waaye yow staru mbedd nga star boo xam ne foo ko gis mu ngi reetaan star boo xam ne boo ko ñëwee gis ko këram soxlawu rendez-vous amul gardien xam ne foo soxlaawee présence bu nekk sa wet kon loolu ñu ngi la si gërëm bu baax di la sant ñaanal bu baax Euh, hygiène de vie bi ngay xam ne mu ñëpp kay ngi wax te moo la indi ba fii moo justifier sa longévité ci sport bi loolu ñun ñëpp mën nañ ko seede sa taxawaay sa doxalin rafet na ñuy ñaan képp ko sport ak discipline boo mën a nekk na nga tegu ci hygiène de vie parce que hygiène de vie lu am solo la kon mi ngi gërëm bu baax encore une fois Gaston production làmb ji nag moom sa dëgg-dëgg am jël sa pourcentage bu yaatu de. monsieur le maire ma laaj la. waaw. ci a gis lu ñu gis ci moom. loolu laa bëgg de te fii ñu taxaw nii. waaw laa bëgg le 27 suba teel. waaw ñu rangale fi ay kaar bu mu fees jël. <laughs> ñu ñu gunge suñu champion. ñu gunge suñu champion mu jëli ndam li comme ni mu ko waxee. dafa am luñ bokk ñun ak moom ku ñu dóor dinañu fay te en général nag fay bu ëpp na moom liñ koy dégg bëri na waaw fay bu ëpp moom ñun lébu gi li ñuy dégg fay bu ëpp na bëri na kon ñu ngi xaar fayu gi incha allah am na nu si dig nag loolu damay bàyyi ba ñu indi bi ma ma wax ko waa àdduna ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant yàlla jàppale. Baba Ngagne kontaan nañu de kontaan nañu trop ci bokk ak yow plateau bi parce que yow wax dëgg yàlla bu ñuy ñun bu ñuy xam-xam ci làmb dañ lay jënd ndax li nga dañ ñuy jàngal pour chaque fois émission bu ñu ko tànn kon bokk yow plateau man tamit yàlla bàyyi mais Papa Papa Papa Ngagne Mbour amuñu seen fay xam nga doomu Ndakaaru dafa jóge Mbuur ñëw Mbuur am Mbuur comme ni doomu Mbuur yëpp am Mbuur te ci làmb la nekkoon doon ay doomu Mbuur di leen fi liggéeyloo ko wala di leen yaakaar naa ne nit la boo xamante ne nii làmb amel na la njukkal man fi jóg numéro 2 maa ngi lay nuyu bu baax Lac de Guiers numéro 2 moom la njëkk a ci làmb. waaw. Lac de Guiers numéro kii la njëkk a bëreel ci làmb. kon champion la. ñëw fii li Modou Mbaye wax ñëw ci mbuur mhm. ak fi teraanga di champion bu mag di xale bu baax. daf may woo fu mu toll. léeg-léeg ma ñëw sax mu ne ma doo jaar boulangerie ba ma ne ko maa fi bàyyi ma dugg ci ñëw. muy xale bu baax. Mamadou jërëjëf. jërëjëf ñun yéen la ñu am ci làmb. Euh, doomu Alaaji Bekkaay. sama dooma. dëgg la. ndax Alaaji Bekkaay suma xarit. la. maag moom dañuy yàgg ci làmb ji. consultant sax dama ko ko daan defal 2S. waaw. ci ànd. te loolu mënoon na ko bañoon defit waaye dafa naan invité ñu ñëw bi làmb nekkee làmb ndax xam nga dama lay wax sa papa procureur u làmb la 2005 2006 xale yi ci dégg daal yëpp moo leen taal booba télé yombul daf ko yëwee woon xale yi ba pare ànd ceeg ñoom gis nga kalaaf yi ñuy wax daf ci liggéey lu bare bare bare bare bare bare jàppe na xale yi génn nañu man xam nga làmb fi mu ne actuellement man làmb léegi damay toog rek di seetaan léeg-léeg ma ñëw instant bi gis ko muy soo damay réew mu bëgg dee damay toog ma toog rek di nuyu nag xale boo xam ne mi ngi ànd ak man di ma jàpp waaw bëggoon naa sax mu ñam tuuti waaye dama ko dañ koy leb ba làmb ja muy Mamadou Diouf. waaw maa ngi koy nuyu bu baax. ku disponible ku disponible waaw. xale la boo xam ne mi ngi suma wet. Euh, man léegi defatuma dara dama koy bàyyi muy def rek damay toog sax di nelaw ba ci yàgg rek këf benn wax dugg ci waaw foofu laa toll ci làmb li may ñaan nag président Meissa mooy fii laa koy waxee musée pour làmb musée pour làmb wax naa ko le ministre Matar Ba wax naa ko ko arène bii bu fekkee bëri rek moo ñu fa dugal ma xam ne nañu bàyyi làmb bi war nañu am musée ci biir musée bi nag dañuy revisiter la lutte de 42 à 69 drapeau AOF e ba 69 dem seeti mag ñi indiwaat leen Modou Mbaye am na mag ñu mu xamul ñëw jëli leen seeti liñ fi bàyyi. Bombardier mii buy bàyyi làmb am na loo xam ne lii dañ koy jëli indi ko yóbbu ci musée ñu xam ne lii Bombardier moo ko daan utiliser tey boo yemee fekk faral du ñàkk ba fekk ko sabadoor bi ñëw jël ko ci ay njabootam indi. booy bambara moo yor drapeau Sénégal arène sénégalaise mi ngi fii këram tëdd lu tax état bi mënu ko jën ñu denc ko def ko ci musée bi dama ne l' aspect culturel de la nañ ko liggéeyaat na xale di takkaat di ngembu. sànq boo gisee ma ma ma ma ma ma gëdd euh, Cheikh Niang mbër yi lakkatuñu xamuñu soxluy lakk waykat di way mbay lakkul parce que seen yaram moo déggatul làmb te loolu dañ ko war a delloo ci xale yi. moom loolu laay tëjee di nuyu ñëpp di nuyu la 2STV El Hadj Ndiaye di kilifa gu baax di kilifa gu yaatu di nuyu tamit kilifa gi nga xam ne Mamadou Ibra Kane di rakkam di mbokkam di nuyu nag Gaston bi nga xam ne moo ñu dajale ci lii dama koy wax di ko waxaat dellu seen ci làmb dafa joxaat làmb beneen souffle waaye dellu woon dafa doon jox làmb souffle rek waaye makkan li nga xam ne tey moo yor Gaston production ànd ca ñi mu àndal dañ lay ñaanal yàlla yàlla na nga yegg làmbaa ngi fi génn ko moom lépp ngi ci làmb lépp ngi ci làmb dañ ko liggéey Sénégal bu ñu doon woote tey lu ñu wàll wàlli seen ci sport ñu làmb dañuy yóbbu mm-hmm. moom la ñuy wàlli jeeg adduna yëpp dañ koy seetaan comme c'est parce que dañ koy seetaan mm-hmm. anamu tey MMA beeg làmb jéeg yëpp tubaab bi dañ koy seetaan moom mi xam ne ci dara même si yàlla président Lamine Diack dafa ne woon bu koy seetaan Monaco toog ak prince bu Monaco bi. oui bu la moom sax toog ci palais bi ak prince ko seetaan mu ngay expliquer affaire yooyu mais gis nga yooyu man da mag bi dañ wax mel noonu. làmb dafa am solo mu mënul gën leen ko jàpp fonk leen ko. yëf yi nag lengee baa ngi seen loxo. waaw gën leen ko jàpp ak seen génération. Ah. di leen wax nag ñu gën a fonk làmb ji. mbokk yi mu doon jotaay boo xam ne tey jii ci mbuur muy jotaay bu am solo daanaka Eumeu Sène ngi fi Eumeu Sène mi ngi fi ndax làmb rek lañ fi wax di woo waa di woo waa Mbour ak Sénégal gépp mhm. vingt 27 ñu def ko fête bu mag ndax dañuy sargal le ministre des sports Matar di maire Mbour. commencé ko ci doomu ndeyam ji xam nga bu ñu paree ne dernière face à face moo Eumeu Sène ak euh, Bombardier Ah, parrainé ko le maire de Mbour di doomu ndeyam dimanche mu war ko fekk ji moom it ñu daje fële ak l'honorable député Sira Ndiaye sunu mbokk xam nga ne bés boobu day ala dawme mbokk yi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf merci Amour